lu ma wax yéen a fu ma jëm yéen asalaamaaleykum nuyu nañ leen jaajëfal leen bu baax a baax dalal leen seen émission li ci xel bi nee naa saay su ne li nekk seen xelu sénégalais dañ koy jéem a génne tey ñu ngi fi nga xamante ne mooy pont passerelle pont piéton bi nga xamante ni moo nekk fii ci Nord Foire pont bi dafa fell te yàgg na fel nit ñaa ngi tiit ndax dina daanam du ci daanu ay temps dañ ko baare woon mu def ko ay rouge ba nit ñi jaaratuñ si waaye ñenn ñi ñu ngi risqué di jaar waaye ñenn ñi ba léegi ñemewuñu jaar ci kaw pont bi ndax euh, yàqu-yàqute bi fi nekk nga xamante ni war nañ koo defar dañuy risqué di jéggi autoroute bi te xam ngeen ne c'est interdit kon nag bu ngeen ci bëggee xam lu leex léegi nii rek dañuy dekk suñu micro ñi nga xamante ni ñoo ñoo nekk population bi salaamaaleykum sëñ bi. waaleykum salaam tur bi naka la. Aliou Ndiaye. Aliou Ndiaye ñu ngi lay ziar bu baax a baax ñu ngi nii si pon bi nga xamante ni moo nekk ci pon Nord Foire bi dafa fell po bi dafa am fu fell ba nit ñi ragal a jàll si biir ana ban message nga ciy lancé. ah man de li ma ciy lancé mooy ñu jëm koo defar ndax fi mu toll nii moom vraiment wóoru te ñun yaa a daw ak bi nii te bu noonu wóoru noonu. moo tax fi ñu toll nii defar daal moom moom moo ñu gënal daal ñun askan gi moom waaw loolu daal moom ko buñ ko ko defoon daal dina lu la bu baax a baax ndax fi ñu toll nii nga fi ñu toll oto yi di dem ak a dikk nii ngay daw di jéggi nii loolu wóorut erreur la quoi fi nag bu ñu ko defaroon na bu nit yi mën di jaar jaar dem dem a dikk dinañu gënal lool ñun askan yi waaw loolu daal laa ci mën a laasé noonu. jërëjëf merci beaucoup Aliou Ndiaye. salaamaaleykum na nga def. maaleykum salaam ça va na ngeen def. ñu ngi dellu ñu ngi ñu ngi fi rek sant yàlla di la ziar bu baax a tur bi naka la. waaye di la laa tudd. Euh, gis nga ni situation bi am fii nga xamante ni mooy noor Foire ñoo ko gisandoo gars yi ñu ngi risqué di jéggi ndax ragal a yéeg pont bi nga xamante ni nee nañ dafa am défaut dafa yàqu. waaw loolu dëgg la temps yi nii chaque jour fii nii chaque jour moo da ngay gis accident mooy di fi waaj te aussi fi wóorul lii nii yéen a ngi koy gis sànq rek benn femme tout de oto bi dugg ko te aussi gars yi ñoom ñoo ñoom ñoo sàggan rek affaire bi mi ngi nii pont bi instant yi yàqu na xeet benn camion moom moo fi jaaroon temps yi la ne laal ko mooy loolu lii daal risque la xama te aussi ay mag ñoo fiy jaar ay maire da ngay gis ay maire yoo xam ne mënuñu yéeg fii nii comprendre fii la ñu mujj obligé jaar ñuy wax na guvernement bi nañ ñëw jàpp si defar pont bi sinon rek ñoom dañuy xaar ba dara am fi wala dara kenn dee fi wala accident bu metti am fi wala ay nit ñu bëri dee fi ñu doo am defar pont bi te loolu naay sul te bëgg dem aussi benn benn genre tata moom moo doon moytu nit ñi di jàll fii la mujj dugg quoi boor bi nii waaw tout des mooy mu laal maire yi doon jaay fii nii te aussi wóorul quoi sécurité bi fii moom baaxul mooy loolu au début sax tegoon nañ fi ay gas ay genre policiers mooy yu daan garder bu oto yi di jàll ñu tàllal mooy seen drapeau yooyu gars yi jàll mais léegi gis tuñ leen mooy loolu ñu ngi nii daal